mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fees ci xibaar yi daal di waxtaanee li nga xamante ne moom moo di renvoi procès bu Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ne nag ay conseil yu Ousmane jamono ji li ñuy sàkku mooy ci ilimaanu jëwriñi di Amadou Ba mu daal di ñëw taxaw ca boobu boobule procès ginnaaw procès boobee nag nga xamante ne moo dox ci njiital Pastef ak ministre bi di Mame Mbaye Niang daal di nañu koy renvoyé ba fukki fan ak juróom benn ci weeruk mars bu ñu sukkandikoo ci bâtonnier yi ginnaaw bi loolee nag demande bi nga xamante ne nag bâtonnier yi ñu ngi koy sàkku lenn ci ay

nekkul ak procès boo xamante ne c'est purement politique ginnaaw leen ci ay aspect juridique yoo xamante ne nag dañ kaa daal di laalli teg ko nële ñu daan ne seenub agenda bi lay yoona dafa daal di nekk agenda bu spécial ndaxte juridiquement dañaa bëgg daal di tëj ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ci ab woo xamante ne ab diffamation la mu daan ne loolee nag nga xamante ne ab farfoli dong la maître Ousseynou Fall moo ni waxee ginnaaw bi nga xamante ne nag nee na ñoom dañaa daal di décider adressé li nga xamante ne nii nag moom moo di ab bloc ginnaaw décision wa nga xamante ne gis nañu kaa jël yokk seenu pôle d'avocat taxaw daal di laayil ki li a taxaw ki nga xamante moom moo di Mame Mbaye ñoom tamit ñu ngay sàkku kii di Amadou Ba moom mi nga xamante ne taxawoon na ci pénku ndaw